mooy sénégalais yi nga xam ne ànduñu ak politiku Macky Sall li ñuy waxtaanee seen biir kër yi bu ñu toogee di naan caayin li ñuy waxtaanee bu ñuy wootante téléphone entre ñaar ñoo xam ni ñoo bokk position li ñuy waxtaanee loolu la Ami Collé waxtu ci sens boobu la ko waxee parce que ci groupe WhatsApp boo xam ne ñoom danoo gëm ni ñoom ànduñu ci politiku Macky Sall Ami Collé actuellement victime la moom dafa war a constitué wu en tant que partie civile porter plainte parce que jël ay données personnelles am ko ci place publique bi. ki def dako trahir parce que ci groupe bi la bokk génn joxe ko presse bi ko relayé danoo infoyé de il faut ñu def très attention actuellement ni article 80 vingt lañ koy c'est sûr japp nañ ko article 80 vingt lañ koy ko chantage lo jëm ko chantage lo wala ñu jéem ko japp sank ko mais lan lañ bëgg Macky Sall dafa bëgg ñi àndut ak mom politique ñëpp ñi àndut ak d'accordul ak mom ñëpp nopi top ci ginnaawam yalla sax mi ñu bind amul unanimité ñepp gëmuñu ko yow ñepp mënuñu la gëm c'est pas possible wala no bëgg léegi ñu dem ci état policier comme li xewoon Maroc wala ay li xew ay Tunisie li xewoon Égypte ban dem na Maroc une fois Maroc da ngay ñëw sax dugg ci taxi di wax ak man bi di wax ci affaire buur wala ngay bëgg jël photo ñu téré la ko mun la non kon sinon waccal parce que dañ leen terroriser psychologiquement danoo terroriser woon ñi fa nekk mooy même Gambien loolu moo leen daloon ba bu daan musaan di wax yaa yaay sax dañ koy déyante sañ ñu ko wax ci kaw loolu du dara parce que psychologiquement nit ñi ils étaient tellement terrorisés que ni gaayen bi loo wax mu jàpp la mais Macky sax dañuy fekk ba suñuy domaine privé la ñuy waxtaane mu ñu ne ñoo lii doon ko fi waxtaane Sénégal yépp di seetaan di def di jël ay parti partisan non il faut arrêter deuxième cas mooy le cas Pendaba. il faut ñu def ci très attention parce que c'est un cas isolé ça n'a rien à voir ak la réalité le Nedokobandum de Kobandum bi ça n'a rien à voir ce c'est pas du net de c'est du net de que ni dono am ñoo ni jël situation que nous Sénégal cohésion sociale bi fa am sensibilité religieuse ak ethnique yi nga Sénégal moy dëkk amul problème pour mën a un président chrétien à la personne de Senghor président amul Sénégal a woon benn problème pour mën fal un alpulaar à la à la personne de Macky Sall Ken mosu koo mais limite, acte posé ak li def pas du bien de ko bandum parce que Fouta def fa dara Macky Sall n'a rien fait au foot. Macky Sall fi mu dëkk Fouta googu ñuy wax non mais Fouta Fouta fàttaliku leen en 2012 mais premier tour 56 la fa Ablaye Wade am Macky Sall législative bi village yaayam dafa dafa perte. Donc ce n'est pas du nétocobandisme. Ce n'est pas du nétocobandisme, c'est du banditisme. Ça n'a rien à voir. Mon moyen de faire que situation, est beaucoup exploité, diviser nous pour mieux régner. La presse, prenez vos responsabilités. Amna yenn wax yo xamni waro len ko relayer parce que si vous vous rappelez crise burundaise bi mi ngi jugé won ci ben radio ben radio ben radio privée le jugé te gis ngeen fi mujjé génocide la mouillé il faut qu'on fasse très attention et que sujet yi bu ñu traité ñu traité ko ak responsabilité te xam ni ñi ngeen di woowee alpulaar bugguma tout sax tudd sax su ko waxee day discrimination mais nous, ñooy sunu alliés pour mën a parce que c'est pas eux un cas isolé wala un bandi bu nekk au pouvoir di def lu ko neex ut benn cercle boo xam ne ñoom la wooyee ne da ko bandum di ko def mais loolu warul feeñ ci ñun Macky Sall du en tant que président alliance pour la république moom la alliance pour la république tellement paradoxal li mu woote ak li mu tuddee boppam ak acte posé bu leen pouvoir dara intéressé woo ko diviser pour mieux régner et dinay jéem a détourner sunu attention législative yi xew na fi ñu jël cas yi ñëw teg ko presse bi di ci jàpp et c'est très dangereux presse mën naa taal dëkk et bu nu vidéo yi ñuy def ci Facebook vidéo yi ñuy def ci WhatsApp di saaga nit ñi di di di di di di di créer benn haine deuk bi mën tak parce que le Sénégal n'est pas à l'abri Sénégal du du dara par rapport ak Irak bu di wax affaire waliw Irak fa la ëppee Cheikh Abdou Khadir Jilani bi ngeen deug fa la jugué sëtu yonent bi Ousseynou fa lan ko rayé Karbala mi ngi fa teud donc ça n'a rien à voir ak suñu suñu maam ñaan il faut ñu retourner waat suñu xel yi jël suñuy responsabilité amna lo loo mënuñu ko bàyyi mu jàll Sénégal musuñoo am problème yi musuñu ko am bu demee ba état bi ñëw mom au lieu mu indi alliance au contraire mom muy indi problème yi ça pose problème gaay nañu déllu war suñu bop xamni tay ji lu mëna xew ñun ñëppay ñak et li gëna a grave actuellement Sénégal dafa nekk dëkk bo xam amna pétrole amna gaz amna ressources ressource naturelle di lañ ci ci di lañ ci waxat mais liaison bi moy multinationale ñëpp xam na ni bu duggé ci dëkk bu bëggee li muy ut amuko ay guerre civile lañuy créer pour ma te guerre civile guerre ethnique moo ci gën a garaaw xooleel kaay xew Afrique yëpp. yu xew Afrique yëpp mi ngi mi lii ñu ngi koy gis muy ñëw nan ko arrêté ka xamal gaayen bi ne ko li nga fi bëgg a imposer du sotti ne da ko banditisme bi nga bëgg a indi du sotti nous n'avons aucun problème pour pour pour pour bu subaa ñu ñu ñu fal benn njaago ginnaaw suba ñu fal benn séeréer ginnaaw war mais loolu mooy lan loolu dafa am Sénégal ñun li ngeen di wax nii c'est tellement contradictoire yàlla innal mu'minina ikhwa la wax ñun ñëpp ay mbokk lan mais tukulóor yi am na droit wax ne mais lii ko bandum au vrai sens du mot parce que du banditisme def attention multinationales ñu ngi wër amuñu won fenn ñu simulation de terrorisme ñoy pour pour la cette fois ci ci affaire buñ ci insister buñ ci pousser genre vidéo yoy ku koy partager sax yow le cas là c'est isolé ça n'a rien à voir avec la réalité sénégalaise mais si on laisse faire réal loolu ça va devenir une réalité ils le bob donc nañ tek débat bi waxtaan ci ñi ngeen woowee alpulaar ñoo ñoy suñu meilleur allié parce que ñoom ils sont xalaatuñ ko sax duñ ko wax fenn kii faut nga nek fenn koo mentalement wéro man pour man elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas saine pour man mentalement wéro pour di mëna avancer yenn propos yi donc ñun on veut suba di lan def benn live bo xamni

donc que jël suñu le suñu xalaat nous ñu jël ko ko ci kanam jël intérêt bi ko que suñu intérêt personnel Macky Sall une fois de plus n'a rien fait à Fouta ba voter wala donc li cas isolé la na wax di leer duma wax ci affaire procureur na parce que amul sens xam ni Sénégal di mais dama li dal Ami dal te gis nga buñ ko bàyyee dinañ dem bu mujj bi téléphone sax sax dootuñu ñuko sañ a waxante suñu biir message sax dootuñu ñuko sañ a yéen yónnante suñu biir li dal Maroc dalon Égypte dal Gambie moo ñuy dal Macky Sall dinañu terroriser ba fi nga tok ngay tok di lox bo déggee Macky Sall da ngay tiit foo waat Macky Sall mooy kan ban ko wara a di tiit 2024 maximum daf ñuy abal mën naa sax 2018 mu jóge mais 2024 maximum bu ko jaaree ci yoon daf ñuy abal kok war ñoo mëna terroriser qu'on de la vérité donc euh, message bi loolu la won dinañ ci def live nag toog waxtaan pour affaire yi leer ci kanamu nit ñi parce que saaga yaa ngi ñëw fu ne pourquoi ñuy saagante pour benn nit Macky Sall amul kenn ku muy fekk sa biir kër ñëw jox la nga lekk wala nga jox la nga naan gars il faut des fois ñuy jiital république bi des fois il ñuy jiital li ñu boole bañ a topp li nga xam ne moom moo ñu feddal li nga xam moom moo ñu wuutale mooy position partisane la maximum vers 2024 lay jeex après ñu war a retourner waat àndaat ensemble amul sens. on va on doit faire très attention parce que léegi affaire bi bu ko tubaab bi yëgee xam nañ ni légui amna fo xam mën nañ fa japp japp ñu fa nak bu coow waré am ñu génnee ñu ngi son do génnee crise Casamance sottiwul bi mën nañ ci jaaree il faut qu'on fasse très attention donc loolu la waxon loolu la loolu la amone ben message bu ndaw may def en attendant débat bi suba ñu tok waxtaan ci ça n'a rien à voir ak affaire wu Net Doko bandum li cas isolé la na ko nan ko régler wala duñ ko régler ñoom ñoo xam nu ñu koy défé mais ki mom bokkul ci ñun bokkul ci suñu communauté parce que ñun Sénégal la ay sénégalais lan ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li ñu intéressé mooy réew mi jëm kanam politique bi Macky Sall di euh, defee mën naa am am xam ànd ñu ci am na xam and nañ ci mais c'est ça la diversité est une richesse donc gars affaire bobu loolu mo don message ba tomorrow inshallah allah jaajëf